ñi ànd ak ñun ci eh, RFM di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci ñëpp di ko ñaanal Sénégal eh, gi nu dëkkee eh, jàngoro coronavirus ak fi nu ci toll jamono yi ñuy wéy rek ci xayma geek tolluwaay waaye ñaaxante sunu biir ci moytu gi bu nu fàttee loxo yi nay faral di set ndax day laal sunu kanam kanam gi doomu jàngor gi jaar ci nopp yeeg ci bakkan bi ngeen baal ma ci bakkan beeg gémmiñ gi kon moo waral masque yi masque it bu leen di tàggoo ak moom.

Euh, jërëjëf El Hadj Assane euh, maa ngi lay nuyu RFM yi ñu yëpp. Mm-hmm. Euh, nga may ma rek ma masawu tuuti askan wi. ci mm-hmm. coono yi nga xamante ne ni moom la ci dund jamono yi nii. Mm-hmm. li ko waral muy ndox mu bari nii. di masawu particulièrement sama dëkk mi waa Géejawaay. di masawu particulièrement quartier bi nga xamante ne moo gën di inondé ci Géejawaay muy quartier bi ma dëkk muy cité Diokhop. donc bi euh, euh, loolu weesoo Alaaji Asan mm-hmm. euh, effectivement jamono yi nii gis nañu que ni depuis quelques jours mel na ni mbas mi dooleem mu ngi wàññeeku. Mm-hmm. fii ci Sénégal maanaam bu ñu xoolee daal di xayma gis nañ nekk ni mel na ni nit ñi nga xamante ne mooy cas positif yi ñu daan wàññi muy muy muy bari lool. di yokk mel na doon jëm kanam. mel na ni mu ngi jëm ginnaaw. Mhm. Euh, loolu nag ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax. Mhm. Euh, d'autant plus que bu ñu xoolee euh, ci àdduna bi dafa mel ni mbas mi dafa gën a amaat doole ci yeneen dëkk yi jëm fa di yokk yokk bu metti mhm. waaye ñun seetlu nañ ne fii nii mel na ni lim bi mu ngi wàññeeku. ñuy ñaan loolu gën a jëm kanam. waaye aussi loolu li ko waral xëy na lenn rek la mooy surtout nit ñi saakonte bi nga xam ne gis nañ ne. ñu ngi koy jéem a saafonte ak mesure barrière yi nga xamante ne nii di ci gën a am solo mm. man li ma jàpp ne moo ci gën a am solo te loolu laa yàgg wax mm-hmm. mooy takk masque yi donc ñu gën ci ñu gën ci góorgóorlu aha maintenant àddina aussi ñu ñaan rek mu wàññi ko fa ndax malheureusement comme roplaan yaa ngi dem ak a ñëw mm-hmm. bu wàññi ko fa it waaw loolu mooy problème mu jàngoro ju ni mel effectivement donc euh, jàngoro ji moom dafa doon loo xamante ne nii Euh, yàgg nañu di wax benn concept bu ñuy wax mondialisation daan ko wax ci économie bi daan ko wax ci yeneen fànn waaye jàngoro bi moom war na ne euh, àdduna bi moom daanaka léegi. Mm. benn benn village la boo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk. Euh, tey jii nii loo xeex xeex feebar bi te dañul ci yeneen dëkk yi te dem beeg dëkkalante bi mënatu la ñàkk ci àdduna bi. day mel ne xeex boobu day mujj nil donc ni ñu ñaanee mu ko fii nii Sénégal noonu la ñu ñaanee mu ko ci àdduna bi. Mhm. Euh, ba lépp nekk loo xamante ne nii euh, fàttaliku lay nekk. très bien euh, wàllu stratégie quand même parce que Sénégal xëy na baaxoowuñu di di di ndamu mais quand même il faut le reconnaître stratégie bi kilifa yi taxawal ak léegi bu baax la xanaa kay gën a dolli pour mu gën a tee baax mais macha allah boo xoolee ci le nombre de guéris boo xoolee ci ci njëlbeen par anticipation yenn mesures yu ñu tegoon. Euh, Manes na nag ndamu tuuti parce que ça encourage un peu les les les les acteurs. waaw c'est vrai que vraiment euh, occasion le aussi pour nous garder bu baax a baax a à ñëpp ñi nga xamante ne dañu ci euh, docteur. Hmm. ndax effectivement malgré le fait que Sénégal amul ay moyens yu yi nga xam ne moom la Euh, am na ñu résultat yoo xamante ne dëkk yi yëpp pratiquement ñee nañu dëkk euh, mooy euh, résultat yooyu mm-hmm. loolu nag su amee effectivement dafa fekk ne Sénégal jël na ay mesures yoo xamante ne nii mesures yu am solo la matul deux mois defe naa ni bi ministre de l'intérieur jëlaatee mesure u imposé waat masque yi Mm-hmm. am na ñu baree bëri ñoo xam ne xawoon nañu am tey xel ci mesure boobu noonu. ma ne woon ne leen que mesure boobu man gëm naa ni euh, dina am effet ndax euh, Alaaji Assane bu fekkente ne nit ñi mënuñu leen teree dem ñu leen teree dem dikk. Mm-hmm. ndaxte aussi euh, koom-koom bi faaw mu dox. Mm-hmm. faaw nit ñu yëngatu. confinement bi nga xamante ne ni moom lañ jéemoon a expérimenté nga xam ne sax nekkuloon confinement total nekkoon lu metti bu fekkente ne loolu yëpp mënta nekk dama jàppoon ne te benn stratégie bokkoon na ci stratégie bi nga xamante ne mooy tax xëy na lii mun a wàññeeku bu baax a baax a baax. Mm-hmm. moom laa wax sànq sama njal benn waxtaan. mooy nit ñi takk masque ndax masque boo ko takkee. Mm-hmm. mu fàtt sa gémmiñ fàtt sa bakkan rek yow tëju nga yow. Mm-hmm. tëju nga ndax ci takk masque. dama ko dama ko faral di wax toujours ci takk masque mooy protéger keneen ci mhm. donc bu ñëpp takkee masque rek donc ku nekk dina protéger moromam te tey jii nii commencé nañ gis résultat yi mhm. résultat yooyu nag effectivement ni nga ko waxee noonu la euh, bokk na ci ay mesures yoo xamante ne nii teg nañ ko euh, waaye tamit euh, dañuy ñaan yàlla tamit virus bi dooleem gën a wàññeeku mhm. ndax man ci sama jàngat itam mel na ni xëy na xadar bi mu amoon mm. xëy na dooleen tamit

wala ñu gën a wàññeeku xadaar mhm. man nag dama jàpp ci sama sama njort bu rafet te mel ne virus bi xadaaram xëy na mu ngi mu ngi wàññeeku mhm. ndax comme ni ma ko waxee sànq même boo loolu c'est de façon naturelle wala mënees na ko provoquer kër docteur ba loolu am euh, euh, fexe ba virus bi virulence bi non virulence su virus bi moom di wàññeeku wala maanaam muy mutéwu ba dooleem wàññeeku hmm. loolu moom du lu ñuy provoquer nit ki moom li lenn rek la mooy fexe nit ki moom am ay soldaar yoo xam ne dañu nekk ci yaramam. Mhm. soldaar yooyu noonu mën ko protéger. ok te loolu mënuñu koo am ci lu dul lu mel ni ci ñàkk. oui ndax tey jii nii euh, traitement yi macha allah am na traitement yu marché euh, encore une fois may may may may félicité corps médical bi. Mhm. leen félicité ci seen am fula parce que <laughs> bon yàgg naa ko ci yenn émission yoo ma yoo ma invité man leen. li li mbote di dundee ba nekk fii buñ ko bàyyi. Mhm. ndax tollu woon nañ ci benn jamono boo xamante ne nii. am na traitement bu ñu wax chloroquine indi woon fi coow. am dëkk yu baree baree bari yoo xam ne nii ñoom dañ ko mujj bàyyi. Mhm. ñun fa ñu nekkoon ba léegi fa la ñu nekk. Mhm. te résultat yi ñu am dëkk yooyu noonu amuñu ko. parce que tey jii nii am nañu presque taux de guérison boo xam ne mu ngi waaj a dépassé na sax soixante dix pour cent. Mhm. loolu day wane ne rek. am na solo euh, moom la ñu téye ba léegi. man damay faral di wax Alaaji Assane que euh, gis nga montre bu taxaw doxul. moo gën montre buy dox te tardé. ndax montre bi taxaw doxul au moins ñaari yoon dana am heure ci bis bi ñaari yoon mhm. mais nga montre bi nga xam ne moom dafay jéem a topp koo xam ne moom moom dafa tardé ba noppi mhm. di topp di dab lu mu mun ta dab mhm. du ko dab mukk te du mu sam heure donc Sénégal si ñu taxawoon taxaw fa tey eh, tey wane na ay résultats yoo xamante ne nii résultats yu yu am solo la te loolu war na war na na xarañte mais surtout man li ma ci neex mooy dafa wane fulla wane souveraineté. Hmm, am na eh, solo loolu defe naa ni lu lu lu am solo la. léegi cas grave bi hmm. cas grave bi moo moo moo nu dese dégg naa waa kër docteur ne ñu ngi ci gëstu yi euh, pour xool naka la ñuy sopparñee pajin wi foofu tam gis nga ci aw yoon boo xamante ni dinañ gën a def de de bon résultat naam ña nga ca. waaw euh, cas grave yi même boo xoolee sax euh, man bu ma waxtaanee ak ñi nga xamante ni ñoo nekk ci réanimation yi nekk ci. Euh, maanaam kër sauvetage yi. Hmm. xamale ci ne tendance bi wàññeeku. ko tendance bi bu bu continuer. Hmm. Euh, vraiment dal na xel hmm. effectivement amna ay traitement yo xamante ne traitement yu am solo la yu melni ci ni ay corticoïdes yoo xamante ne euh, ñu ngi koy utiliser ci cas grave yi. corticoïdes yooyu nak ku ne xam na ni bon xaw ma nu ko mëna waxé ci wolof ay anti inflammatoire lañ yu am solo. ci fièvre bi. dafa dafay dafay créer lu ñu tuddee inflammation inflammation nag su ma la ko bëggoon a tekkil ci olof alaajar Asan mm. damay wax ne maanaam mën naa wax ne mooy lu wunni lu wunni mm. maanaam tey wala lu neewi maanaam tey jii nii boo boo rëqee sa tànk mm. eh, boo toogee tuuti da ngay gis ne day neewi neewi boobu mu yi moom lañ tuddee inflammation inflammation nag foo ko gis rek dafa mel ni am na lu bokk ci ñun suñuy soldaar luy xeex ak loo xamante ne mm-hmm. dafa nekkul ci xeex boobu nag muy indi maanaam tey jii nii. Euh, bu boo gisoon tey ay nit di di. ci xanaa mooy xeetu xeetu càqaar yooyu ñu muy wane xeex bi dafa. yooyu yooyu yëpp ci xeetu inflammation la bokk. Mm-hmm. te feebar bii nii euh, bokk na ci li nga xam te ne moo tax. Mm. muy faat doomu aadama yi di leen di leen di leen faagaagal. bokk na ci inflammation boobu lay indi ci ci xëtëru xëtëru xëtëru ah. doomu aadama. Mm-hmm. am nañu nag benn garab boo xamante ne nii corticoïde la. garab boobu noonu wane na efficacité bu am solo eh ci inflammation boobu noonu même bu fekkente ne garab bi du rey virus bi ci boppam uh-huh. dina dina dina dina faj inflammation boobu xët xëtër yi dellu na woon voilà dellu na dellu mu woon voilà macha allah xam nga loolu lépp dafay baax ci explication ndax ñun ñu xam méritu waa kër docteur li ñuy daj ndax ñu mun leen a nangul sax li ñu wax wàññi gàttal tànk sol ay masque xam nga uh-huh. souvent rek la question de la communication day ñëwaat bu nit ñi bu ñu gënee yeewu ci yu bari

ay mois de juin bi passé amon nañ ci tendance baissière. Mhm. ñu toog ba mu mu donc bugguñu aussi nit ñi gis ne mbir mi mu ngi wàññeeku bu baax rek mais ku nekk bàyyeekuwaat ñu delluwaat ci li ñu nekkoon. ndax euh, la ne dina mais ñu continuer xeex bi ba mu complètement jóge mhm. donc euh, li nga nous ne gis nañ ko. muy muy régression boo ne lu am solo la. daf respecter barrières mhm. euh, encore une fois. Euh, de telle sorte que yàlla mën na def fii fii ak fii ak deux mois wala fii ak trois mois. bu doon loo xamante ni dina génn carrément ci Sénégal. Mhm. ñu yàlla mu génn ci mu génn ci. amiin am na solo mais aussi sax ñu ñu defaale ko entraînement ca xam ne àddina ak ay virus ñoo ànd. ma ëllëg si biir ñaanu ma ko yàlla mais bu leneen ñëwaatoon fekkoon ñu ak yenn jikko yi donc dafa baax sax ñu ñu approprier wu toutes ces mesures là tous ces comportements yi nuyoo. waaw man day Alaaji Assane wax naa ko ay sama yenn xarit ñaa leen vraiment mhm. euh, li nga xam te ne ne tey jii nii jël nañ ko ci ay habitudes yu bees mhm. maanaam di di di di di raxas suñu loxo fu ñu génnee ba dellu si mhm. maanaam di éviter ak maanaam ay rassemblement yoo xamante ne nii amul farata amul njariñ yooyu dafa doon ay habitudes yoo xam ne man dama jàpp ne même bu ñu génnee ci coronavirus bi mhm. dafa doon ay habitudes yoo xamante ni nii waratuñu ko bàyyi mhm. waaw ndax ndax lépp loo xamante ne nii rek euh, reyu la mhm. daf laa war a mën a dooleel noonu la ko tubaab noonu la ko tubaab tubaab bi waxee dëgg la te tey jii nii même résultat yi nga xamante ne euh, dëkk africain yi am nañ ko yu mel ne ci Sénégal ak yeneen dëkk yi bokk na ci jàngat boo xam ne jàngat nañ ko ci ay feebar yu bare bare bari ñuy dal bu bu ñu dal ba jóge fi ñu jàngat ci loolu tey xëy na tax na euh, maanaam euh, vraiment dégâts yi métti ñu doon xaar. Mm. ci coronavirus def ko ci ci ci Afrique def ko ci suñu dëkk yi. defu ko donc tamit li nga xam ne moom mooy mooy mbas mi fi nekk nii. buñ ci génnee faaw ñu am ay jàngat yoo xamante ne nii. Mm-hmm. ñu doxali ñu daan doxalee lu bare bare bare ñu bàyyi ko. warees na ko soppi ba feebar yu mel nii di fi di fi gën a mën a. incha allah jërëjëf euh, professeur Bamba Kane <laughs> jërëjëf Alaaji Amar ñu lay gërëmati bu baax professeur Bamba professeur agrégé ci wàllu physiologie ca fac médecine euh, titulaire des universités conseiller du euh, chef de l'État son excellence euh, monsieur Macky Sall ñu koy gërëm bu baax moom sëñ kan ñu dem ba Fatick ak soxna Aminata Goudia bi Aminata maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay El Hadj Assane. Aminata politiciens yi am na ñu daan wax fatigue et fatigué ba nu bëggee bien évidemment <laughs> carte bu ñu bëggee carte waa fatigue rek de fatigue et fatigué. di leen tooñ <laughs> mbaa mbaa Fatick fatigué wul ci mbas mi. fatigue waa am na ay zone yu xaw a sonn quand même ci ndox mi. yu ne Soko nag passé il yeeg yooyu noonu. am na ah. yu xaw a sonn quand même. ok kon inondation eh. plus euh, coronavirus. corona bi moom fu mu toll wa corona bi nak fi mu ni nii euh, lu tollook ñaar fukki nit ak juroom benn ñom ñoo am actuellement nii ni feebar bi ci région bi euh, fukk nit ñi ak juroom ñent manam 19 neuf yi la ñu mu am sept personnes yo xamne dañ leen di defal euh, prise en charge à domicile seen ay mm. kër lañ leen di faje waye dem rek ci ben réunion bo xamni gouverneur moko don amal ak autorité sanitaire yi ñi ci don waxat question service de réanimation ba légui fatik sax mam ka grave yi bëreegul noonu mais dañ mm. leen di évacuer vers l'hôpital Dalal Jàmm Dakar ba tax na démb gouverneur bu Fatick Seynabou Gueye mi ngi doon defaat plaidoyer bi mm. ngir rek autorité gaaw ci euh, service de réanimation bo xam même mën nañ ko installer ci euh, hôpital régional bu Fatick ngir mm. mu mën a ñi nga xam ñom ñoy euh, cas grave yi mm. ñi bi febar bi commencé ci dëkk bi ba légui mm-hmm. région bu Fatick 87 cas positifs, lañ fi am mu am ci nak 8 yo xam malheureusement dañu dañu décédé waye am enregistré nañu également taux de guérison bu doole leneen lu ñu mën a jàpp euh, également mooy daanaka district sanitaire yi nekk ci euh, ci ci région bi yépp feebaru coronavirus bi jot na ko laal mm-hmm. euh, le le service de réanimation bi nga wax noonu am na solo ndax xam nga mm-hmm, mm-hmm. Fatick Géejawaay moom dafa sori dëgg la sori na ko pour rawale malade. maintenant askan wi ñoom wala comme Sénégal yépp rek ba tey ji il faut ñu ko ne wax ak ñoom est-ce que ñu ngi wàccoo ak mesure barrières yi waaw waaw ñu ngi koy parce que gis nañ ne li nga xam ne moom moo port de masque bi vraiment c'est respecté ici dans la commune mm-hmm. euh, néew na loolu ngay taseek ay nit ñoo xam ne sol seen masque vraiment tey itam ñi nga xam ne ñoo comité de suivi des épidémies bi nga xam ni mm-hmm. moom moo ci région bi également Ça su que ñi avons def ay campagne de sensibilisation bi ci mujj mooy samedi bee passé nga xam euh, gouverneur xam nga moom moo comité régional de suivi des épidémies mm-hmm. defoon nañ ab caravane boo xam ne dañ doon ñaax askan wi ñuy gën a euh, sàmmook geste barrières Mm. rawatina sax ñuy gën a am ay comportement yoo xam ne dañuy protéger mag ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir kër yi mm. parce que ñu bëri dañu wax ne feebar bi ñoom ñoo ci gën a vulnérable way ñoo ci gën a sonn ñoom mag ñooñee ñoom mag ñi balaa ñuy dem xëy na ñu ñu ñu déglu seen tawat ci inondation yi bi yoon euh, ñoom waa waa Fatick wala euh, waaw waaw Fatick nag euh, inondation yi ñi nga xam ne ñoom ñoo ci gën a sonn ñoom ñoo di waa Sokone ak mm. Passy ñoom ñu ngi ci biir département bu Foundiougne ak benn île bu ñuy wax ñoojoor mi ngi ci ko waar fofu euh, taw bi yakate na fa yu beure beuri xam nga ñoom dañu amone benn jafe-jafe bo xamni ni euh, noir euh, ak palmarin ak jifer xam nga ño xawa a dend hmm. taw bi di ñew aljuma geej gi dafa amone benn ganax go xamni dafa danelon ay kër yu bëri jifeer hmm. yakkat tamit ay kër yu beuri palmarin ba seen ay ni seen ñi nga xamni ñom ñoom ñoo fa dëkk sax si mu ne dañu génnoon ci seen kër yi hmm. dem dëkk ci yeneen kër soko nit amna ci quartier yu melni jamagon nord jamagon sud taw bi yak na fa yu beuri nee sax pont bi nga xamni mom modi pont bourdieu Diamé nga xam ni moo doon euh, village yi dëkk ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkkee ci village bu Mboul Diamé mhm. moom lañ doon jéggi ngir di mën a ñëw ci centre ville bu Sokone di mën a def seen ay activité ne ñu pont boobu itam ndox mi dagg na ko waaw ah loolu kon euh, soxlaa ngoo ko <laughs> mhm. ay soxla la ñuy wax euh, di am <laughs> yaakaar ci fay dégg ci monsieur le ministre Serigne Mbacké Ndiaye mo ngi lay mo ngi lay encourager <laughs> moom xam <laughs> maa ngi remercier bu baax a baax moom moom dafa taxawal fan club bu RFM moom. RFM waaw waaw gis na lolu <laughs> jërëjëf non moom sama tonton la. nit ku baax ñu ngi lay gërëm bu baax kon Aminata di ziar waa Fatick yëpp. merci beaucoup merci. allez très bonne journée. euh wa Thiès Cheikh Anta Diop Cheikh Anta la koy jiiñ ndax dañuy fogg ni dama fi togal Thiès quoi Cheikh Anta nee agent communautaire de agent de santé communautaire yu Thiès ñoy yeglu ah monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr gars yi nee ci walu ndàmpaay yi daal motivation yi waaw ñu ngi xaar les agents de santé communautaire de Thiès pas encore motivés par rapport à la Covid 19 loolu lañu wax ñom waaw kon ministère bi nga xamni mo moo leen njabootee bu ko déggé rek euh, bu dé def na nam baxna bu déssé ñu dolli jërëjëf seigne Cheikh Anta Diop ci kanam tuuti ñu ànd ak yéen mbokk yi ci euh, téléphone bi. di pàcc bu mujj bi nga xamante ne dañu ci fàttalante rek ni nu war a taxawee ci penc mi rawatina ci moytu géeg jàngoroy coronavirus. seet man seetlu naa Euh, technique beeg animation bi Aliou Ba <laughs> Aliou bu nagui Massa jar mom day wote ay ngoyaan ak yu ni mel këram 88 628 14 14 RFM Radio Futur Media euh, ci ñi nga xamante ne ñooy yi bëgg a jaar ci serveur bi ngir rek euh, fatelante as toute mbokk yi. waa euh, Gazou moo ma yónnee SMS nii Gazou Gazou moom <laughs> sama dafa doy waar quoi sama copain démb dafa dafa dafa raccroché mais nee na geddul woon ah geddul woon dafa bëggoon gàttal moo tax mu teel a raccroché gazu waaw mu ngi jéggulu mais du ma ci sori jéggulu moom amul xaju bi yow sama waaye nga ci kër gi nga bokk Ibrahima Jong Gazou laay Maktar euh, neen daal mu ngi jéggul auditeurs yëpp mais ñu ngi koy gërëm bu baax di ko sant nit ku baax waaw bu baax rek ni doxale Euh, mun ngeen jaar ci fixe bi également dafa mel ni serveur bi dafa xaw a xatas lëf donc euh, le fixe 33 849 16 48 aw yoon la ngir ñu waxtaan euh, lu ko moy rek ñu daldi xaar ba beneen. ñu ngi ak benn auditeur asalaamaaleykum. allo. waaleykum salaam wa rahmatullah. kooku. Makhtar Dramé. ah sëñ Dramé ñu ngi lay ziar. doon ay at wax dëgg yàlla. ah jërëjëf waay. di rafetlu seen liggéey bu baax a baax. alhamdulilah. comme ni ko nit ñi di defee rek olof Ndiaye dafa wax ne merci gàtt na waaye ku deful dara doo ko dégg. Mm-hmm. kon boobu li la nit ñi di sant di la ñaanal. léegi mm-hmm. léeg nga di ko déglu daal macha allah. alhamdulilah jërëjëf Dramé. ñu ngi rafetlu liggéey bu baax a baax. jër jërëjëf jërëjëf. ci kii corona bi du ko nit ñu di waxee rek mhm. daanaka bu ñeboo ñaan yàlla daal mhm. boole ko dellu ci yàlla taxas xol yi itam mhm. xam naa ne moo ciy bëgg a des dëgg la dëgg la waaw ndax nag euh, lu ne jëm nañ ko waaye nag xol yi mënuñoo maanaam mënuñoo am lu ñu bëgg lu dul nga xam ne su suñuy xol dafa nekk benn malgré dina jafe nag waaye nag ñu jéem a te lu mag ñi ndax amuñu ñu dul ñoom dëgg la waaw ndax amuñu ñu dul ñoom wax dëgg yàlla maa la ko wax gannaaw loolu daal lañ fi dese. Mm-hmm. docteur yi jëm nañ ba sonn. ah ñu jéem a topp togtal tegtali ñaan yeeg wàllu wàllu wax li docteur yi wax ñuy port masque yi wax dëgg yàlla itam loolu amul amul amul amul amul lenn luñ ciy sikki sàkk quoi. Mm-hmm. la de gannaaw bu du set yàlla ñuy sutural ñuy am astut bu ñuy jëndee masque. Mm-hmm. nañuy ñàkk di génn sans masque bu ñuy génn nañuy takk suñuy masque. dëgg la am buñ jullee ñaan yàlla suñu borom. ay astaxfirullah ak mbooleem ñaan yoo xamante ne mën nañ ko pour yàlla sutural ñu rek ñu def ko dëgg la dëgg la parce que dafa mel ni moo fi des dëgg incha allah ñu rafetlu liggéey bu baax a baax jërëjëf sëñ Matar jërëjëf waaw merci Assane Gueye merci merci Dramé jërëjëf 88 628 14 14 wala 33 849 16 40 asalaamaaleykum allo waa sëñ bi alaaji Assane waaw man la Cheikh Niang bu Aldo Cheikh Niang ma ngi lay ziar ay sëñ Cheikh Cheikh Aldo Kassor Aldo sama sama frère. Aldo toy waay. ndeke coono Cheikh no def. sante yalla baax baax. alhamdulilah Niang. alhamdulilah. bien. Iya. waaw ah, soo ñëwee day am na solo hmm xanaa ya, di ñaan mhm. sun borom nga fi duggal mu gaaw génne ko rek. amin amin amin Cheikh. Ah, waaw te ñoom fi jël seen baka ñëpp sun borom jégal leen. amin ya rabbi. sa magal gi ñu jëm ñu dugg ci jamm génn ci jamm amin ya rabbi. ak jàmm geeg yëpp. amiin amiin. baax na jërëjëf ya. El Hadj Assane. Cheikh kontana nah. ñu koy ziar bu baax Cheikh di ziar Aldo ak euh, toute l' équipe asalaamualeykum. aleykum salaam Alaaji Asan. waaw sëñ bi. Alaaji ñu lay ziar de la kontaane. ay baax rek yow. <laughs> kana naka la tur bi. non damay leb da nga koy leb ayca. <laughs> ñu lay kontaane di la ziar. waaw yàlla yàlla na nga ziar waay. di ziar waa groupe Futurs Médias yëpp. jërëjëf. waaw di ziar Oustaz Mor Thiam jërëjëf jërëjëf. waaw ngi jëf El Hadj Assane ñoom moom. Mm-hmm. dañ lay jaajëfal rek. <laughs> kontaan naa. <laughs> borom baax nga quoi. non yaa yéen a ma gën vraiment. non. ah. yow kay kenn gën la moom. <laughs> jërëjëf kontaan nañu. waa jaajëf jërëjëf. yàlla yàlla defal la jàmm. waaw ñu bokk ak ñëpp. Ah, amiin Ablaye euh, antu l'autre là Aliou Aliou Kabbe tax xàmmeetuma la da nga koy yéegal tuuti. asalaamaaleykum voilà. <laughs> asalaamaaleykum. waaleykum salaam. Haji Assane. waaw kooku. maam Sini Diop di woote Diop Saaw. ah ñu lay jaar baax Diop. Ah, di kontaan trop trop trop trop ci émission bi. alhamdulilah. waaw ah, wax dëgg yàlla ñu ngi bàyyi xel rajo bu baax a baax a baax a baax. jërëjëf jërëjëf Diop. ah mel na ni corona ba mu duggee ci réewam ba léegi. Mm-hmm. groupe Futurs Médias ak yéen ñi yéen ngeen ci liggéey bu nga xamante ne. ah macha allah yéen a ngi sensibiliser nit ñi. alhamdulilah. Hmm, kon boog dañ leen di man dama leen laa sopp. amiin ku may duglu xam ne man groupe Futurs Médias dama leen di béyee. jërëjëf waay Diop. moo tax dañuy sonn dugg ci ligne bi. Mm-hmm. pour a jot di leen gën a parce que waaw góor nag. Mm. Hmm, dafaa tax a nit a solo am na bii moom wax dëgg yàlla danoo bàyyi xel rajo bi. ndeysaan bopp di soññi ñëpp rek. Mm-hmm. mooy corona am na ak amul daal dina mate du mate. waaw.

ñoo ngi ziar. Alaaji Assane. waaw ah, kooku sama xarit. <laughs> waaw sa xarit la. <laughs> gazu. waaye kontaan naa waaye. gazu maa ngi la ziar bu baax. bég naa ci yow lool ñëpp il faut ñoo xam ne bi may def loolu démb. Ah. Alaaji Assane wallaay c' était juste pour wane rek le montrer la bonne voie. dëgg la dëgg la. le parce que boo nee nagaat parce que gis na ni da nga wax wax ju am solo ñu nga jëkk jël. Mm-hmm. nga détaillé ba ay 9h moins. Mm-hmm. waxtu bi day xat. et puis man moo tax mu dugg rek ziar sëriñ bi eh, ziar yeneen xalifa yi. man tam damaa juum xam nga li tax dama la teel a ñaan waaye man tam dama foogoon ni seq nañ ko xam nga dañoo yàgg nag. déedéet dañoo yàgg <laughs> maa ngi dañoo yàgg xam nga bu baax Kambel. ok waaw Kambel Dieng. Kambel Dieng tey su ma defee journalisme. Kambel nit ku baax la moom la ndaxte bi nu nekkee rek moo tax may def moom moo def journalisme. ok di ziar bu baax sama élève bi nekk foofu Dieng ba Ba maa ko yoroon euh, lycée Parcelles Assainies. ah ndeysaan macha allah waaw Mhm. di ziar suñ Muntaxa ziar suñu laay mu baax mi mhm. ak maam Babacar ak mbooleem xalifa bu islam macha allah e, ñu ngi jaajëfal ñëpp di wu nag le président de la république mhm. li tax ñu koy massaw euh, kii xam nga Alaaji San feebar bu duggee sa kër waaw xamoo fu mu jigee ñu war ko toppatoo raxasu leen takk leen masque euh, def leen distanciation yëpp kon xamagoo yow loolu lay faj yow si sa biir kër laa wax de dëgg la jékki-jékki mën da ñëwaat dal sa kaw dafa metti ñu ngi ñu ngi masawu baax le chef de l'État di masawu mboolem Sénégal fu mbënd mi am ñu ngi leen di masawu baax di ñaan nag ñu xam ne lii mbiru yàlla la mhm. te ñu waxtaan daal di defar mu baax loolu rek mooy li am solo di gërëm nag bu baax le ministre Aliou Ngouille Ndiaye mhm. drame bi amoon Cambérène Aladji Assane ñëw na fa massaw leen. ah très bien le ministre Mbaye Thiam ànd na ak man ñëw massaw waa kër ga moom it. Mm-hmm. ñu demaat Grand Yoff ñu ngi leen di massaw ba di wax ni. Mm-hmm. Cambérène boo déggee ñu xale yi yëngatu rek. dañ bëgg ñu yëg leen. mais defu defuñu réewande. Mm-hmm. defuñu dara lu ñaaw billaahi ma lay seddee lool. mais nañ gëm leen leen parce que assainissement bi baaxul. nañ wut ay relais relais seen diggante kilifa yi bu ko defee ñuy anticiper kon comme moom Cambérène nawet beeg yooyu ak yoonu ay problème du fa du fa ci waxin. effectivement léegi li bëgg mooy réew état bi. le président la dam naka régler. au niveau de la plage mu daal di jeex. incha allah Alsane lay gërëm. merci Ibrahima di la ñaanal wasalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam jërëjëf yàlla yàlla boole ñu ñaan gi sàmm la sàmm sa njaboot Ibrahima Jong Gazou ziar waa Yoof yëpp waa Ngor Cambérène asalaamaaleykum. waaleykum ngi lay ziar sëñ bi. yàlla ko yàlla nangu te bisimilah. waaw maa ngi wootee gaawaan. waaw kay. waaw. yow la. man la Dame Fall. Dame Fall. waaw. waaw ah, kay bisimilah sëñ Fall. maa ngi lay na yàlla na ziar. waaw di la ñaanal gudd fan bu ànd ak wér. amin ñu bokk ko amin wax dëgg yàlla kontaan naa ci yow mën naa dama nga tàmbale ba léegi tey la yàlla dogal ma woon waaye bis bu ne maa ngi jéem. ah jërëjëf sëñ daam. am na benn suuf sax vocal am envoyé naa la vocal waaye diglu ma ñu kii. dëgg la dëgg la. maa ngi lay sant bu baax su ma sañoon nag dinaa am sa numéro ndax man daal sopp naa la lool. waaw kay kon da ngay da ngay garder ligne bi rek dégg nga. ndax xam naa ni sax sama goro nga bu boo xamul. ah ndeysaan. ndax Alaaji Guèye mi mi sa rakk bi takk jabar gaawaan. Alaaji Guèye waaw. Ah, sama fet la takk ah ndeysaan macha allah gis nga de. <laughs> Ah, loolu nit ñi li ñuy wax rek ñëpp ay mbokk lañu. jërëjëf Fall boo gardee ligne bi Aliou Ba jox ko sama numéro ah. waaw ah, kooku auditeur la goro la jërëjëf Fall. suñ daam ñi ziar waa gaawaan yëpp di ziar El ak njabootam. 88 628 14 14 wala 33 849 16 40 asalaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu ngi lay nuyu sëñ bi. sëñ Alaaji. waaw. naa ngi lay nuyu bu baax di la bu baax di la sant bu baax. jërëjëf. gis nga yow defe naa ne amoo noonu. Mm-hmm. li ma tàmbalee ba léegi. Mm-hmm. rajo yi nekk dama koy dégg. Mm-hmm. waaw man loolu sama problème mooy. sa noonu yi sax dañuy déglu RFM mais bu ñu demee naan ñoom dañuy bëgg ni ñuy ni ñuy xalaatee ñu leen koy waxalee. réew. dañ cee wax jàmm. ah vraiment jàmm daal ci la lépp xaj de. mais da ngay wax benn wax mais ñuy dem yóbbu benn rajo yi naa journaliste bi nekk RFM. Mhm. dafay def lii dafay wax la dëgg la. te yow ñu fa yow faroo mhm. <laughs> boo faroon fen ñun ñu xam ko. nit ñi defuñu de. ah non. Mhm. fekk ñoom dañoo dañoo opposé ba bëgguñu ko wax lu baax. <laughs> loolu mënul mënul nekk. mooy terroriste intellectuel yi ñuy wax rek. gis nga da ngay wax benn wax nii. ñu ne waroo kon waxee nii. da ngay lii laax loolu pour lan. <laughs> te ñoom ñu ngi toog ci rajo di wax lu leen neex ci lu ñaaw ci ci nguur gi. Mm, vraiment. ah non. non non mais ñooñu jarul ngay merde ñooñu xam nga nit ñi ñi ku ko nangu nangu ko rek ku ko nangu rek nangu ko mais wàllu xalaat moom ak liberté d'expression. daf may métti parce ah. que damay déglu rajo yi yeneen rajo yi di la déglu. Mm-hmm. ñoom bu ñu waxee fii boo fa waxee lu rafet ñu dugg ci na daje naan waaw. su mhm. nawet bi nangam nangam dugg fi gën bi di wax wax lu ñaaw yow. <laughs> mënta ñàkk mënuñu ko mënuñu yàq sa der. mënta ñàkk mënta ñàkk garaawul. dañuy sonal seen bopp yow jàmm rek ngay am bu sobe incha allah jërëjëf ñu bokk jërëjëf kontaan naa ci yow vraiment. 88 628 14 14 RFM wala 33 849 16 40 ñu daal kon euh, dese nañ ñeenti minutes. <laughs> asalaamaaleykum. aleykum salaam. ñu ngi lay ziar sëñ bi. ñu ngi la koy delloo bu wér ala yasin. waaw. ñu ngi lay ziar waay. jërëjëf waay. di la sant bu baax a baax a baax. alhamdulilah. di rafetlu sa taxawaay bu baax a baax a baax. jërëjëf jërëjëf. wallaay rafetlu ñu liggéey bu baax a baax a baax. ndeysaan alhamdulilah alhamdulilah. wallaay yàlla na yàlla yàggal fi bu baax a baax a baax. amiin ñu bokk. bëgg dugg rek. ndeysaan. wax dëgg yàlla bi yàgg laa diglu lool nag ndaw lañ la wax dëgg yàlla bi yàgg nañ jóg. lool lool lool noo tudd yow wi man de basiru si la tuddu ma ngi lay wooyee pour. ah sëñ basiru ñu ngi ziar bu baax. mais nag kontaan nañ ci yow bu baax a baax a baax. jërëjëf wax dëgg yàlla yal na yàlla yàggala fi bu baax a baax a baax a baax. amiin amiin waay kontaan ci yow ya, dong nag kontaan ci yow ya, kese kese kese kese. Ah, yal na yàlla kontaan. jërëjëf Guèye jërëjëf Guèye kontaan naa si jërëjëf. jërëjëf jërëjëf Guèye jërëjëf merci Basirou merci. asalaamaaleykum. maaleykum salaam El Hadj Assane. waaw sëñ bi. waaw man la Bibi Diène Bibi Mbour ah. bi mbuur ñu ngi lay ziar. waaw fii la pe naka yite yi. ça va alhamdulilah. ah alaaji mm-hmm. damay sant yàlla bu baax. ndax sama cofeel ci yow alhamdulilah bi ma la jotee. jëf Diène jërëjëf. alaaji dañu lay ñaanal bu baax a baax a baax. amiin amiin yaa rabbi. taxawaay fii ci Sénégal ñëpp gis nañ. jërëjëf. macha allah yaa ngi bay sa waar. Mm, alhamdulilah waaw dañ ci kontaan bu baax nag di la ñaanal nga yàgg fi te wér. amiin ñu bokk amiin. ndax te dundu njëriñ la li ngay wax tamit yaa ngi ñuy yaa ngi ñuy ñun jeunes yi. jërëjëf. waaw kon dañuy ah, dañuy rafetlu sa liggéey bu baax di la ñaanal nag. mais kontaan naa ni xaaral ma garde ligne bi Aliou ba jox ma sa numéro. di taag dinaa dégganteeg yow. waaw amul benn problème. incha allah léegi waaw Aliou joxal euh, bi bi euh, numéro bi boo demoon sax ca ñoom euh, Mr Vade wala Mami Maysa Mbengue ah ca Abdourahmane Diallo mbuur <laughs> di nga am numéro bi mais garde la ligne Aliou Ba <laughs> da ngeen a baax rek ñu ngi leen di gërëm wax dëgg yàlla di sant ñëpp Oustaz Mor am di wax rek nit ñi kenn moomu leen ku yebu def jàmm <laughs> waaw euh, ñu daal di euh, Aliou ziare jaale nag suñu suñu rakk ah euh, Assane Diouf technicien ci ci RFM suñu Assane dafa waaye juróom bu jigéen dafa wàññiku démb. Nous avons eu yeesal sunu sunu njaal di jaale njaboot gi yëpp kon ci président conseil d'administration groupe Futur Média le président Youssou Ndour ci directeur général Birandour avec ak euh, tous les directeurs tout le personnel vraiment tous les directeurs de la radio Babacar Fall Daouda Diouf euh, ak euh, Abdou Aline Badara Diallo Pape tout le personnel Nous avons lay jaale Assane di la Assane Diouf technicien la bu am yar waaye pastefu lool ci liggéeyam ñu ngi kon jaale njaboot di ñaan sunu yaay jooju suñu borom subhaanahu wa taala xarikal jana euh, Aliou ñu jël benn ba ñaari auditeurs yi mujj asalaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw Cheikh bi. sëñ Assane Gueye. waaw. ñu lay jaar bu baax a baax di rafetlu sa taxawaay. waaye jërëjëf yow la kan. macha allah man sëñ Saliou Diallo lañ may wax maa ngi wootee si Kër ma Kër ma Jabel. Kër ma Jabel ñu ngi lay jaar. waaw ah, delloo jaar bu baax a baax yow daal ah. macha allah sa liggéey rafetlu nañ ko trop. <laughs> jëf waaye man na tey laa mos a rajo wax. dëgg wallaay ndeysaan. mais te liggéey daal rafet na macha allah. yow yow mënuñ laa fay yow tamit vraiment. sëñ Saliou man nag sama soppee Tayib Socé ko dégg trop maa ngi ah, Tayib waaw Tayib de ku baax la. maa ngi koy ziar bu baax a baax. yàlla na yàlla nangu ziar dinaa la ko dinaa la ko waxal. jërëjëf seen boobu waa juróom wàññeeku ñu koy mm, ñaanal. Assane Diouf waaw amin amin amin waaye amin. sallallahu alayhi wa sallam amin. Ah, ok jërëjëf merci beaucoup merci. ñu koy euh,

kenn amul seen fay génération Futur Média mooy auditeurs RFM yi nga xamante ni ba ñu tàmbalee ba léegi macha allah sonn nu tàyyi wunu ci lu nu yëg lu nu yëgul nag ñu ngi nuy taxawal fu ne yàlla yàlla fay leen mbokk yi jërë ngeen jëf ñu yendu ak jàmm.